مدار لا إله إلا الله لا إله إلا الله شيخ موسى لا إله man nag yàlla dafa def Cheikh Moussa daf maa tàggataloon gis nga ñii di ngaw ngaw yëpp su lay ñaala leen dàq julli billaahi dëgg la ñaan amul benn guddi bu may ñàkk def ñeent fukki rakk waaw foog nga toll de waaye mën ngaa daal amul benn gudd waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jëf jërëjëf jërëjëf loolu tolluwaay la mën mënta ñàkk waaye nga daal tuuti tuuti tuuti billaahi wallaahi barki sax mu sas si waaye gars yi dañ dof soo ko waxee ñu ne déedéet waroo koo wax téeméer rakka yi sëñ Tuubaa daan julli fan la ko julle fu ñu ko xamee way ku xol yalla ngistal amatu ca cer ngistal moy gis lu yalla so xese gis yalla jeex ma ngi bëgg a jàll fale te te gu serigne borom bes gu mag gi su fekke oote na li ñëpp top ko ngañ na ji ñii te biñu jëm aljanna kon luñ ko top aljanna la oote aljanna la oote aljanna la oote man nañ am nak lu ëpp aljanna way lu ci kanam waaye li feeñagum laa wax li ñu jàkkaloogum te ñu mën ci wax lu nit mën a teg bët aljanna la sëriñ bu la yóbbuwul aljanna du sëriñ ci beneen boor bala la la yóbbu yomal xiyaam su ñëpp toogee ni ñu def nii xam ne benn rang rek a des benn wax rek a des yàlla nee na moom am na juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent Cheikh Ousseynou mu ne nañ ko def benn wala ñu def ko junne. li muy wax gars yi ñemewuñ ko. gars dañ koo ragal daf leen ko benn wala nga def ko junne loolu ku ko ñemee wax ci biir jànkat yàllaa ko jox jamono hebal ko jamono mu yor jamono dama am ko ñëw na ko man di dama gént guddi gis tabax yu rafet tali bu rafet dox jëm ci ah seet naa li ñan yàlla fay lii Cheikh Moussa indi la ci digg dëkk bii def ko ci digg dëkk bii du kum neex nga am ko de du kum neex nga am ko de waaye nag ngërmande yàlla noonu ku yàlla gërëm lu mu laal mu tàkk loolu rek la dal yaa ngi dégg yàlla ne su bés boobu taxawee du ma leen oo suma juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent déedéet yàlla mu ne lu leen oo ci tur du leen oo turu malaaka yi déedéet du leen oo ci seen turu ndey ak bàyyi luñ foor foor foor yàlla mu ne du ma ci oo ah gars leen sëriñ te jàpp sëriñ te téye sëriñ bu mat sëriñ bu mat sëriñ alquran mu ne yow ma noddohu kullu unnaasi bi imaami naar bi si kii mu ne ma mu ne lax la wax na waaw mu ne lax la wax na def bés la bo xamne bi may noppi sax ñu àggali aaya bés la bo xamne kenn ku nekk day lay wo ci sa lut sa imam misal bi nak na leen ko jox leg pour ngeen xam ko suñ sulay ñaan suma ma dina ñew te tour la am tuddoo ko de sa bëñ yi ñew te tour la am sa lamagne bi ñew tour la am sa bakkan bi ñew tour la am sa kawar gi ñew tour la am waye benn tour rek lañ o lol yépp ñew yowmal khiyam buñ ne njàmme wala cheikhul qadim lepp lu tak ci mom da ngay jog ñëw mu ne sëñ Tuubaa yow lo andi wala ñu dafa mbokk rek suma xel dañ gis nga li am yi def ni fu sikkar jëboor dama mbëkk laay wallaay tan gars yi dañuy soxor rek mandeetuñ am yàlla am bakkan mënuñu ànd yàlla bu feesee rek bakkan jeex xam ngeen li xew jeex ci yàlla moo jafe waaye yàlla fees ci yow loolu la ku gindee ko rek yàlla fees ci yow waaye yàlla ji fees ci yow dal loolu la doon wax mu ne da jeex ci yàlla tag yàlla fees ci yow dal ñun xamuñu woon ne ku ñëw ci yàlla am dara billaahi bi may jógee mbudaay di ñëw musuma xam ne lii am na dara lu ci ne lu dul jaamab yàlla la xaw ma yàlla njàm mi day xam le yàlla ma uyu ko yàlla mucc donc laa ko dikkale waaw kii jox ma lii yàlla ma ki la jox lii nag yaa ko jox sax damaa téye ci suma loxo mu ne Souleymane ku joxe boppam nag amatul dara waxuma jox ma lii de waaye dax ma ne ku joxe sa bopp amatoo dara ci ma toog mun ma loolu de mooy jébbalu Souleymane xaw ma lu wax waaye yàlla nag moo may ni ma kii ku ko liggéeyal mu ci ku ko liggéeyal kaw comme mën a doon na ma ne comme alxuraan wax na ne destin ci kenn ku nekk su turu njiit ci la lay woo oo njiit bi mu ñëw taxaw mu ne ko loo àndee woon ak ñii mu ne ah man de tawhid laa àndee wu ñoom mooy kalimatu laa ilaha illallah yàlla laa leen xamal mu ne loolu nga la xam mu ne taxawal fii loolu doyut de mu ne taxawal fii mbooloo mi ñëw leen mu ne leen ñu ngi naan déwoon ak kii mu ne kii yàlla lañu ñu xamal tawhid la jox mu ne loolu la mu ne waaw mu ne jaar leen fii su ma ndeejoor ngeen jël seen téere ànd ak moom dem aljanna sëriñ bi ngay jiital bu biir aljanna kuréel ga le mu ne hee lu ngeen àndewoon ak kii mu ne ñun daal suñ maam lañ fekkoon mu jàpp ci suñ maamaat jàpp ci suñ maamaat jàpp ci suñ maamaat jàpp ci mu yow loolu nga àndeewul ak ñii aska demal taxaw fale yéen lu ngeen àndee kii mu ne as maamam rek la ñu won ñu poñeyante yaa ma waxoon yaa ma waxoon mu ne jaar leen fii daf ko wax ci mbuddaay sa Moussa ma wax nii daf ko ne ci mbuddaay ne ana maamu soxna ana maamu soxna lu ci yàlla wax bés penc mu ne dañuy poñeyante ku nekk ne yaa ma waxoon yaa waxoon mu ne jaar leen suma càmmoñ tey du ngeen xam dara ci seen téere ànd leen ak moom jëm ci kër gu tàng ku am sëriñ bu la yóbbu ci yàlla moom ngay àndal dugg aljanna ku am sëriñ boo xam ne xamalut la yàlla moom ngay àndal dem ci kër gu tàng ka kon nuñ mën a wax ne sëriñ du yóbbu nit aljanna alquran duñ ko attewoo benn atte waxoon naa ko ca daaru am ñuy siibutu ma ne leen man Cheikh Moussa sol na ma alquran mbóot ma laa wax loo firi firi alquran su ma firi alquran ci sa kanam nga daan loolu Maroc la doyee suma discours arabe bi nag damaa foog ne damay bàyyi bu Cheikh Moussa Touré toog sëñ euh, sëñ Modou toog moo waxal leen ko rek ci ne digg naa ko sëñ Modou sax waaye dama wax ne Cheikh Moussa Touré bu toogee sëñ Modou toog mu firil leen waaw dama koy wax damay wax arab waaye su ma ko waxee ci mbooloo mi télé yi yóbbu ko day doy war lool day doy war lool te li gën a garaaw Cheikh keneen la ñooñu bi ñu defee loolu kii toog def discours kii toog def discours ñu def ko 15 minutes ñu ne waaw léegi dañu am benn gan gan bi nag tey dañ préparé pour euh, laaj ko lan la dikkee ci dëkk bi te boobaa am naa ñu ma pikiir li sëñ biir di wax sax boobu am na ñu ma defal ruxsa ñooñu nag ñooy dem ci jàkka ji da leen wax ne gis ngeen kii ngeen gis nii xam na ci alquran boo xam ne ñun ñii ñëpp ñu ngi toog waaye xam billaahi wallaahi tallaahi képp kuy gindee yàlla rekk a fi nekk mënoo jàpp arab billaahi wallaahi tallaahi billaahi wallaahi tallaahi dang leen di lambuloo ñu daj déggoon naa nag kuy wax ne eh, Cheikh Moussa gindeewut ci tur ha waaye nag Cheikh Moussa Touré daay wax baat bu koy mu ne su fekkee li la sa sëriñ xamal rek bi nga demee ci loolu nga yem mënoo liggéey ci biir lim liggéey boo indi leneen ci biir lim liggéey mu ne yow amoo xam-xam biñ waxee ba noppi ba nga xam ne jox nañ ma parole ma ne leen man dama leen di laaj am na koo xam nag dégg na français bu baax te ki ma àndal dégg na arab dégg na wolof doon wax bu bu déedéet déedéet déedéet loolu bokk ci kuy fayee ko doo tëb kuy xëccoo doo noppale kuy tooñ kenn mënu la làq ah baatam boobu suñ ko jàppoon rek noppale ko man daal ngañi ngañi gi nekk ci suñ biir ak siisant bi daal xaw ma lan la dégguñ ko dégguñ kàddoom waaye ci ñun taalibe la yi la yem de ñii dugg nañ ci néeg alal bu bari dara leen alal bu bari dar leen ñu waxtaan ba noppi génn kenn ku ne kenn xar-xaramam sëgut ñëpp sii sañ bay set dafa ko wax toujours mu ne ma ñii ñooy gor ñoo dund yàlla dugg nañ ci néeg bu génn seen xar-xaram dafa firée pour ñun nag suñ ñut ñut bi ci suñ biir qu'est-ce qu'il y la xam nga li mu amoon ah, dina wax dëgg la xëy na ñoo waxul dëgg ak Irak ñoo xeex fukki at sikkar bi jolli ci njool bu tàng wit dir kuur ji mu ne tël génn talab tal tal ne arrêté door yi terewuma ko ci yoonu murid waaye sama yaram moo ko att yaramoon nit la sëñ Mbay Seck jàpp ko ci loxo ne ko ñaanalal jaamu yàlla yi mu ne ko na ma ñëpp nangul su ma ñëpp nangulee ñetti fan ma soppi ko mu nekk lem ira ak ira googu ngeen di ñuy xeex su ma ñëpp nangulee mu jeex ak ah ñun boo xëy na suñ nangu bi dafa wérut boobu ñun de bu xool sa morom rek siisu ko waaye xam nga li mu ñu waxoon mu ne mu ne mu ne mu li muy yàq moo ëpp li muy defar mu ne dafa mel ni kawaru fas buñ tàllal nga fas yéene dox ca kawar ga mu ne baraste ko moo gën a yomb jàll baraste gën a yomb jàll Cheikh Fall nee na boo gisoon bëgg doon xool Sëñ Tuubaa bu ñëwee rek day sëddu mu ne day bañ sax njort rek def ko nit mu ne loolu rek la doon bañ mu parce que xam na ne su ko njortee nit rek daanu la su ko njortee nit rek daanu mënu ma ñàkk wax arab waaye mënu ma ñàkk wax arab ma wax ci laay fekk mu wax ba pare ma ne ko asalaamaaleykum wa rahmatullah mu ne aleykum asalaam yaa cheikh ما عرفت اسم الله بجسم الناس mu toogaat mu wax ki mu àndal noonu kii lu wax ma ne maa araftu ismu rabbi fi gis ni kulla ndax yow gis nga turu yàlla gi ci bépp jëm doomu aadama من وحل المكونة لم يوخ لم يدلي لم جعل القرآن بالله والله تعالى من قال الله سبحانه وتعالى العربية بين القرآن الكريم والقرآن العربية إن عرفت القرآن العربية القرآن العربية موكل من إيه، وقت موني وقو وقو لولو موخ لولو مو يقاجل نونو wax ko mu wax ma fu ko alquran xaajale waay waay bu leen xool su la ñaan de doomu awagi yag diw ak diw xam dara Cheikh Moussa mbir mi dina daj àdduna mbiram mee fa nekk de wax mu ne wax ko ne li may wax mu tegtal na ko ci alquran lan moo xaajale quranul arabiya ak quranul karim lan moo ko xaajale la ne qaala subhaanahu wa taala fi alquran kitaabullah alastu bi rabbikum qaalu bala laa gis foofu yaramam fa ma ne ko laa gis li ko xaajale laa koy wax de ma ne ko laaya bële ngay jàng loolu mooy kitaabullah كتاب العربية في القرآن قال الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بين القرآن الكريم وقرآن العربي إيه، موسى بس كل وقت خمنا لي فلي لك ne lii fale la ko lii ci jëmm la ko wax iqra bismi rabbika ci jëmm la ko wax ci sirru wa rabbuka al akram wax bi jàngal sa turu borom bale mu ne bu tedd bi soo ko waxee dof na mu ne ci lu muy wax ni benn laay wax de jàngal sa duru borom bu tedd bi te xam ngeen li gën a tëdd ci li yàlla bind doomu aadama la nit a gën a tëdd mu ne mu ne ma taxawal waa ji lab ko mu ne waa ji nee na mu ne yéen seen tariqa bi lan la fil quran suñ tariqa ci senegaal lii ñuy yëngatu nii tariqa bi lan la ci Sénégal waaye yéen ku ñu ko laajoon lu muy wax ci mbooloom yéen lay laaj islam daf la ne nga waxal ko ko ci alquran ñun suñ tariqa yi ñuy yëngatu nii ci jamono gi ñu toll ni ku ko xam wax ko njàmme du moroomi ku yàlla bind lay ne fi alquran alkarim qaala subhanahu wa

ñu àgg ci yàlla te dund yàlla duñ tappaleante duñ defante lu bon jàppante ngir jëmu yàlla yàlla na yonenti yàlla muhammad waxaat julli ñu ñu nekk ay rabbaani yu kuunoo rabbaani ki ko ñemewut na xam nga lu mu firi dafa ne nekk leen ay yarkatu nit ci yàlla ñu xamut firi ba dëgg loolu lañ firi mais kuunoo rabbaani hee nekk leen borom bi kuunu rabbaani waaye gannaaw ki ko firi ñemewut gannaaw ki ko firi ñemewut wala agut ci moo tax Cheikh Moussa yàlla ñu ko yàlla mu ne Souleymane ku la yee ci alquran daf la koo gën a dégg alquran bi ma toog nii maa ngi koy gën a dëggal képp ku ma ci toogal maa la ko gën a dégg ci darajay borom daal te benn bés la kat ben bes la kat lycée technique bu kaolax ci lama ko defé dañuy tabax juma day ibadur rahman yi bind ben lettre jox ko lettre ba aksi ci mom mu jël lettre bi ma ñew xawma dara mu jël lettre bi jox ma xawma jang ci ndey jor xawma jang ci jang jànguma français jànguma arabe mu suleyman dimal ma ci mom xam nañu ñëw ay jankal lañ mun ma Souleymane demal ma ci te man lu ma waxoon du koy werante dama xam ne moom ma ciy jiitu xalaatuma damay daanu xalaatuma damay def nii maa ñëw jayang jayangi bu ak seen biir toog baax ci la ku ne ci waar da war a ñàq léegi ñu question ma bu doy waar nag ah, mun ma Souleymane ya ñëwal señ ma ko amul waa gor gi ma andal bu def la yé la fer ya defon saaba ya bañ ñu demee fu daw jitu len lene ñi ñew na xol leen seen diina ji lañ kontor koku daw lene lañ len ko ci alquran xamu ci dara lañ len ko ci alquran xamu ci dara jàngut ba sa jàng ci samaan ci la nekkoon góor googu Cheikh Moussa Traoré xam nañ ko takku layti bañ buggee wax moo ne lu ngeen di wax ci takku layti sëñ bi yónni leen bañ buggee wax moo ne lu ngeen di wax fii amul wax loolu ma góor googu moo wagga jaane gaay yi ne leen laaj le waaw kay mun laaj leen ko rek su ngeen ko laajee de ca alxuraan rek loo xam lu mu war a wax yéen ñun suñu xam yàlla bi xam nañ ko ñun xam nañ ko ba pare dañ la koy wax xam nañ gëm nañ yàlla gëm dogalam yi gëm julleem yi ooram yi wax ba pare ni ma yéen nag seen xam yàlla bi sëriñ bi di oote nii xam ne ku ci dugg rek tiit ku ci digg rek jaaxle loolu lañ leen di wallaaj ak yi tegtal bi ci alquran comme jàngul arab waaye yàlla yéena ma ci saasi rek njami fëgg ma ma ne xam yàlla ak Cheikh Moussa mooy yàlla dafa dajale ruu yépp ne leen ndax nekkuma seen borom da mu ne cas aaya bi ne ma su fekkee loolu la sëñ bi di wax xam yàlla di ko ñépp xam yàlla kon ñépp a xam yàlla waaye dañ ñëw ci àdduna nu ñu fàtte waaw ci àdduna nag nu ñu koy xamee yàlla indi fàttaliku leen ma lu bari moo tax fàttaliku leen ma nga ne mooy fàttaliku julli mooy fàttaliku koor mooy fàttaliku gilme asika mooy fàttaliku aj dangaa ngaa jiwum li ko tax a jóg waxoo ko dafay yóbbaale nag lépp luy fàttaliku alxuraan loolu lay dikkee dafay yóbbaale lépp lu mel noonu looloo tax muy ànd ak jamono waaye fàttaliku bi benn mbir ko tax a dañ xamoon yàlla ci alastu bi rabbikum ñu ñëw ci àdduna fàtte yàlla ne yónnee yónnante wax ko lu bari ci alquran fàttaliku leen fi ma njëkk a defee jas suma yoon wi bokku da bale da alors ku ma toog rek mu wele waaye soo àggut te xamoo xam-xam da ngay wax ne kii dafa dem di weer xam-xam bi déet noonu la war a demee noonu la war a demee sëñ tubaab bi mu ñëwee dafa def ruxsa Cheikh Moussa bi mu ñëwee jànkat yi mu def ruxsa bari na ñoo xam ne Cheikh Moussa Touré nga xam na leen ci Kër Mbangu góor gi dàqoon jàng ci tund wi Kër Mbangu la dëkkoon sëñ Tuubaa Cheikh Moussa ruxsa la ko defal ruxsa boobu li tax nga di ko def du pour moom mais bu jógee day dem fële ne leen eh kii li muy wax dëgg la de man di jàng naa ci alxuraan waaye gisuma ko woon kooku nag moo yóbbu gaa yi ruxsa mooy. yow ma nga la warona jaay li lii dërëm nga ñew mo ne la jox ma dërëm rek jël ko moy tay tay tay tay ngay ñew may wax ak yow bu yàgg nga ne ma limay wax xawmako way bëgg na ko mo ne la xolal nga xol rek mu mbég mo ubbi la pay bi so yoon bu ñoo ñooñu ngi gisoon ñuy yuuxu loolu taxoon ñuy yuuxu gis nga bi ma leen ubbilee secret julli rek la pa bi yuuxu ma ne ko lii nag su ngeen doon julli te xamuñ ko fu ngeen jëm allahu akbar ikati say loxo loxo du loxo loxo la li ci biir moom lañ lay won képp ku xamut allahuñ ci ciram mën gindi jàngkat dégg naa na gars yi bi waruñ di ko xamle yàlla duñ ko xamle ci tur wa yaa réer yonent yàlla moom selaan wa salaam luñ ko xamal lu du iqra bismi rabbika tur lañ ko xamal yàlla wax lan oo leen ma ci suma tur yu rafet yi kooku ndax bàyyi na dara loola nag su ubbeekoo ci yow yéeg yéeg yàllaa koy def ci nit moo tax seex mu ne mën ngaa gindi nit te du yéeg loolu nag ku ci yéeg rek jàll fi ñu invité ñoo ak bi su ngeen xoolee ci kii gi dangeen ko gis ñoo elimaan bi ñu toog euh, Demba ki ma àndal Baay Faal la mu ngi yor course boo xam ne bii la yëpp te ñooñu xamuñ loolu man xam naa ko man xar bu siiwlu laa ci seen biir damaa dal rek léegi nag kooku ba mu yoree course bi waxuma ko dara léegi ñu ngi koy joowante ci seen biir mu ne sëriñ yi dañuy dof loon yi rek comme jaam rek luñ nekk rek nga ne ci waa ji neex a dëkkal wax ma ko mën na ko ah mën na ko waaw bàyyi ko yàlla àtt na ñu dajeeg ñoo élimaan beeg ñëpp a boroom xam-xam mu ne waaw nëbbuut ko de mu ne waaw kii moom li mu yor nii lan la ma gindi ko ci kursi gi mu jooy billaahi wallaahi tallaahi billaahi wallaahi tallaahi ma jël peru kursi gi la ca gannaaw ma ne ko bii liif la ñaari per ci digg ma ne ko laam la indi per ba ca euh, euh, euh, bopp bi mu jàpp ma ne ko asaka la muy yuux dañu dem yàlla nag seen njàng lii rek lañ billaahi mu yuuxu ci biir mbooloo mu ne allah anta cheikhul kabir bant rek kurus bi rek ci laa ko gitti mu ne allah anta cheikhul kabir ma ne ko déedéet du ma yëngu foofu talalal say loxo oh. mane ko jógoon ñu yonent bi mooy seddale mu ne ANCAR waa ji loppatu ko mu ne ANCAR yonent bi kay mooy seddale ma ne ko bànkal nii solo loxo rek mu def kurpeñ ma bind benn miim ne ko xoolal li lan la mu ne ma miim fii ma ne ko lan la mu ne haa fii ci sa kaw kii ma ne ko lan la mu ne miim ma ne ko sa sadi bi tiim sa sa mboqotaan sa yax bi nga xam ne moo nekk ci ci sa gannaaw lool du deel mu ne allah allah ma ne ko hee hee waskor rabbaka fi nafsika tuddal yàlla ci sa bopp mu ne nee na mooy wax laay laa ilaha illallah ma ne ko déedéet waskor rabbaka fi nafsika yàlla xam na ne tudd gémmiñ a koy def ndax yàlla la gën a xam léegi nag daf ne tudd ci sa bopp la wax su ma waxoon tuddal loxo doo laal loxo su ma waxoon tuddal bopp doo laal bopp yàlla nee na tudduma ci sa bopp sikkiñ baa ngi laal suuf ma ko tegal sa loxo mu teg loxoom ma ko sa baaroom bu bu ndaw bi lan la du liif yeneen ñaari baaroom du laam xëccal joxu la asaxeer mu ne allah ki jàngoon ati si du jeex di mun te ati cheikhul kabir mu gestu mu ram ne ko kii kii mooy sëriñ bu mag bi li gën doy waar nag arab soo ñëwee ci seen biir ñu ne boroom xam-xam la ndeke dañ lay seeti di la boole ci nag billaahi wallaahi barke sa um saa léegi ñu dem yóbbu ma ci borom xam-xam la bor dafa set ñu ñëw ne ma ndokkeel na ndokkeel na waaw ñun sax la wax lii mu ne gan bu fi ñëwee indi xam-xam dañ ko yóbbu ci boroom xam-xam bu mag kooku nag ci lañ lay jàppee ci lañ lay bàyyee mu ne leen bi bor setee mu ne leen kii du waliw yi de waliw bi gën a màgg ci waliw yi leeram dem na ci suuf dem na ci kaw billaahi wallaahi tallaahi su ma fenee maa ngi yàlla la ma fenee maa yàlla la léegi nag kooku su xesee wax amatul ku bañ amatul ku bañ booba dañuy sikki sàkk dinañ ko may jabar wala duñ ko may jabar kera lañ ma takkal jabar may nañ ma naar boo xam ne du naaru cobo cobo de waajuram roi Assane II moo nekkoon commandant armée bi Assane II jël ko óolu bi gaañoo moom roi Assane II kii retraité kale gaañu ki mu toog nii taawam bi bu muy takk jabar roi bi toog nii moo ñëw war hélicoptère wàcc xutba ko xutba ko laa wax de jege naa buur bi heure buñ dajee dinaa ko jas billaahi wallaahi taala dañ jëm alquran nag dañ jëm alquran lool te ñoom bëgguñ nga wax leen ci alquran wax nañ ma ne amul benn benn nit bu mës a ñëw Maroc hatta bu ci bàyyi ñës bi mu ñëwee Maroc li saa jël li saa li ja li jaasa sëriñam la jëli ñib si amul benn marocain boo xam ne mos ngaa jaayanteeg nit mos ko am ne na ñoom dañ koy door a tëj bët waaye nag wax leen ci alxuraan luñ xam lam waxoon suñu mbir mi dina tëj adduna kap seet naa alin defal na leen Cheikh Moussa sëñ Fallou Mbacké dafa bëggoon sëñ Tuubaa dafa bëggoon aji dematu sañ faloo ko ajal Cheikh Moussa fanam yi mujj dafa ne moom daal suñ borom dafa am lu mu koy tegtal rek mu ne Babacar naa dina am jabaru sérif toppal ma jabaru sérif ci diggante bi la teg yaayu ndey bu mii ñu jox taalibi Cheikh Moussa Touré bi ndong suma mbokk ci diggante bi la la ko ko yàlla shérif ba mu bëggoon moom laa ko mottali takk naa shérif te yéen ñëpp da ngeen am shérif milliards yi jigéen ñu ne naa leen di ñëpp ñu ne naa leen di kon nag pare leen Maroc Cheikh Moussa Sy mokkal na ko ci yéen la jëm si xam yàlla gii xam yàlla gii xam yàlla gii ku ko yorete yàqu ko nag yaaraw waaye nag lu julli julli julli julli su ñëwee maa leen raw luñ julli julli julli su ñëwee maa leen raw man ma nelaw guddi sëñ bi ah bëgg a may am may yàlla da xëral mënul nekk laa wax waaye nag du loolu yàlla ku ko neex mu may la lu du dara yàlla ku ko neex mu may la lu du dara gis ngeen li ngeen am gis ngeen lii Cheikh Moussa jox ni nañ def fulla ak fayda te ku ne raxas xolam nag ku ne jox sa moroom loxo yàlla pare na ngaj ngaj gi terewul li yàlla di def yàlla def na ko ba pare yàlla may na ma ci loo xam ne li ma gëm fii mu toll nii ma yóbbu ko kenn. comme neex na nga ne non du dëgg parce que jàngul deful nangam waaye suñ toogee danga xam ne li nga jàng soriwul Ablaye Diouf a ngi nii Ablaye Diouf suñ tund gi yëpp fi may wax ak yow nii jànkat yi xam na Ablaye Diouf mii laa suñ tund gi jamono gii kum toogal moo la raw القران دا ام فوت دا ام يون وخوما نار نار القران لي لا وخ خلا نغام نغام لا وخ يو لي وخ سني لاكو لاجي فوم نيت سا تير دو وخ ماي ياي مي ني تودي برهام خم جي ني تخ مو يوبو ني سكري شيخ موسى لا ديمي واي ني سين بين كو خامون اسكو دي نن ديف ني توب كو ني سكري شيخ موسى لا ديمي man nak su mu wax amul ngunu ngunu de ca kaw su ma wax dafa lii bare xam ngeen fi ma ko waxee médias yi duñ ko yóbbu fu ne te yàgg naa de ko wax de mbudaay dafa xebal jànkat boo xam ne affaire la def ci ndugg boobu moo ci soo mbokk mu ñëw na pour kokk li ñu mbudaay de taalibi Baay Ñas ñu ñëw pour kokk li ñu waaye su waxee alxuraan ñi koy déggee du noonu alxuraan ñaata prix yi juróom-ñaar yooyu ëmb juróom-ñaar juróom-ñaar yooyu nee na ku la ci yéey dafa ciy gën a dégg dafa ñëw ne ñuy wax xam yàlla aguñ ci yàlla xamuñ luy yàlla na ñuy seex de ko oote te maa ngi kaalaw ne yungu li sëñ bi wax ne dañ doon dafa am ñu suyar seen bopp rek sot seen mbubb yu rafet yi ne kurum mbubb yu rafet ak xol bu yéeg ci yàlla bokkut àgg ci yàlla ci kenn rek la ko nit ci bàyyi te bàyyi boobu yi tey barxam yi moo ko moo ko ubbi moo ubbi mbiram man moom jaratuma dara ah, ma noppi rek bañ pare ñu ne waaw léegi nag sëñ bi comme da yéex a ñëw daf maa bëggoon tëj sax waaye gannaaw ñal damaa dëkk ak ñoom dëkkin bu rafet luñ xewle may def fere yëpp gannaaw diina nga ma wax at buñ xewlee may def fere yëpp ah luñ may def léegi ñu ne nag sëñ bi moom il faut mu mos sëriñ bi sëgg sëgg lu ñu ne ko déedéet sëñ bi mënta ñàkk a mos te man xam nga su ma mosee damay xabaabal ñu jox ma maa nuyu leen ba pare. sëñ Maodo mii mu nga kii mu ne ma yow bi nga waxee man damaa tiit ko déet man dëgg fekk dama koy wax ma ne leen salaamaaleykum yéen ñii di wax xam yàlla maqaama nangam maqaama nangam maqaama nangam billaahi wallaahi tallaahi barka alquranul karim seen sëriñ maa ko yéegal allahu lay wax seen sëriñ maa ko yéegal man mii maa ngi ëpp booloo su ñu ma noqale. te sama biir dëkk lañ ko defee su ñu yëngatee ñu dóor le benn wérante yàlla bu mu am yàlla bu mu am léegi xam-xam laa leen di dóoree ma ne leen yéen pour wax leen ne li Barham di wax ci man mii la jóge ak Seexu Omar Ndiaye dafa jébbalu moog moog am di Cheikh Moussa ne ma ma agsi sax Moussa mu ne ma ñii de Souleymane waxtaanal leen su may jër baat lañ bëggoon naa ngeen ngeen ngeen di waxtaan Babacar kii day wax dëgg yàlla mbudaay la waaye nit ku dugg la de bëggoon naa ngeen ngeen di waxtaan ak moom nii la def man ak moom ak Cheikh Omar Cheikh Omar su leen waxtaanoo ci maqa man maa ngi kii xam na ci kii ci léegi moom ñuy ñëw ci ci ñuy ñëw ci lii daay jógee nag Kaolack directement yow ci seen seex sax du accident ko ci continuer wala ci ku dem ñu nekk ci lii man man weer ci lalam dëkkati fii ah. benn tali am fa nekk bu ndaw moo jabar mu ma yow moom dama laa yóbbu booba da ngeen ay wax ki ne nañ ko rati kii ci ci xam-xam kii ne mooy ruuxu kii ah, kii sëriñ yi ñoom kii ñoom ñoom benn ay waa Mara li ngeen koy wax ne xaw ma nan nga ci ruu robbi na yàlla <laughs> booba tooguloon na ma weer Dakar moo ko ci kaw lal bi man ci éponge ci benn néegu puus la weer booba Cheikh Moussa mu ne band yi may wax yi ma waxoon ak euh, këne ndax ko yóbbu ñu ko enregistré muqaddamu moo ko enregistré bu ñëwee mu ne taalibe ñu gis ngeen ciy jàng dara waaye njàmbaar gi njàmbaar fu mu dem daay wax marché yi damay taxaw di wax nit ñi wóoruma su may sangu damay wax léegi ma ne leen pour tegtal leen benn mbir xam nga maa moom bokkuñ sëriñ fi ñu toll nii ñu ne ma déedéet ma ne su fekkee wax naa ci maqaamam te ci moom gisanteeguñ ba mu demee ba tey teglanteewuñ bët su ma leen waxee ne maa ko yar da ngeen ko gëm te su ngeen moom lan moo koy dugal ci tarixa du kurus ñu ne ma wax man du kurus Cheikh Ahmed Tidiane laa leen lay laaj fukki weer yeeg ñaar boo ma ne fukki weer yeeg ñaar wax nga ma dëkk ne bi ñuy laal weer yi ñu ci bañ ñaar kon du wax fu weer nekkee kon wax yéen bu ngeen gis weer nekk kon wax def wax lépp weer fu mu nekkee fukk ak ñaar wax bi nangu ñoo ko fa weer weer du fukk ñaar weer benn lap di Cheikh Moussa wax ne yi tur yi ak yàlla yi def leen ko benn wala ngeen def ko ay junne mën na leen wax ngeen ne fukki waxtoog ñaar xam ngeen ne fukki waxtoog ñaar amul loolu yaa ngi tubaab yi dañu fi fukki waxtoog ñaar amul am ko ñaari yoon ci benn barab 24 heures du matin de soir 24 heures nga wax dafa feeñ ci bëccëg bi nga wax ko mu feeñ ci guddi bi nga wax benn nga lenn nga wax ñaari yoon ci ñaari mbir mais lenn la juróom-ñaar la juróom-ñaar dong la nga tudd ko ci benn béréb ñaari yoon ne am naa am naa fukk ak ñaar foo amee fukk ak ñaar juróom ñaar nga am yaa ko wëññee noonu du fukk ak ñaar waaye bàyyee ko noonu ndax ci déggee noonu déggee noonu ñu taxaw ma ne kon fukki période ñaar tudd ngeen ko ci ci ci ci ci ci weer yi lu ñuy wax ci lamañ rek la mënu leen koo laal wax ngeen ko ci bes yi ci waxtu yi lu ñuy wax rek la mënu leen koo laal léegi nag fukk ak ñaar yooyu fu mu nekk ci yéen te Cheikh Moussa nee na damaa fekkoon kurus ñu def ko fukki pere juróom-ñeent ndeke seytaane moo kefoon benn bi ca pays ba ma dem jëli ko ca pays ba moo ko wax bi ko mottali téeméer mu ne moo ko jëli ca pays ba pays ba nag suñ la ko waxee mooy nit waa pays bi mooy nit pays bi mooy nit li tax nag mooy nit maqaama soo ko tuddee da ngay ñëw fekk ko ci doomu aadama maqaama mooy doomu aadama maqaama mooy li nga wax ci alquran gis nga ko ci alquran bi nga ñëwee noonu ngay fekkee ñu bindee ko ci doomu aadama جمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا شيخ موسى لا